rapporteur honorable député chers collègues ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp monsieur le ministre bëggoon naa balaa may jël kàddu rendre hommage à la fédération nationale des pêcheurs surtout de la pêche artisanale amoon nañ suñu benn góor bu baax bi ñuy wax ba Ablaye Fall nekkoon na fa président pendant presque vingt ans bokkoon ci ñun am lu bare loo xamante ne def na ko ci pêche donc euh, bokk na aussi ci ñi nga xam ne may nañu ñu mën a porter tey préoccupation wu pêcheurs yi monsieur le ministre Hann Bel-Air ngi lay remercier di la féliciter ci complexe frigorifique de dernière génération bi nga xam ne moom ngeen fa nekk di def di leen remercier également pour toilette ak hangar bi nga xam ne commencé nañ ko def donc euh, ñu ngi rafetlu bu baax a baax le directeur de l'ANAM Achille je crois qu'il est donc euh, monsieur le ministre bëggoon nañu wax tuuti ci lu jëm ci wàllu immatriculation wu pirogue yi immatriculation wu pirogue yi commencé woon na mu nekkoon benn élément bu am solo ci pêche artisanale tàmbali woon nañ ko mais gis nañ ne que taxaw na parce que loolu bokkoon na ci li nga xam ne dana yombal ñu mën a identifier ñi nga xam ne ñooy acteurs yu pêche ak seeni boroomu gaal parce que gaal yëpp ku ci nekk am na tur ku ci am sa tur nga tuddee ko waaye duñ en cas de recherche duñ leen mën a identifier donc programme boobu doonoon nañ demander à ce que ñu mën ko relancer jàpp nañ ci biir yi wàll boobu également sécurité pêcheurs utilisation GPS bi am na solo gis nañ ne que gaal yi ñi ci ëpp ci ñu mën a utiliser bu dul capitaine bi ki topp ci moom la donc ñu gis ne ko formation utilisation utilisation GPS am na solo pour ñi nga xam ne ñi ngi ci biir toujours sécurité en mer war nañu mën a am système boo xamante ne dina bokk ci li nga xam ne mooy aar parce que gis nañ ces dernières années ne ñiy réer biir géej dañu bari te li ëpp li nga xam ne moom nañu constaté c'est que balaa marine di intervenir dana fekk déjà vingt quatre heures quarante huit heures jàll parce que pêcheurs yi dañoo am pratique bu fekkee ne dañoo dem guddi balaa ñuy déclarer dañuy bàyyi ba heure bi nga xam ne jot na donc duñ leen gis ñu mën a informer ñi nga xam ne ñooy ñi embarqué woon ci biir mais ñu bàyyi xel également que ci biir wàllu sécurité waroon nañu mën a am benn disposition wala plateforme bu ñuy mettre en place muy genre traceur buy mën a permettre gaal bi bu duggee biir géej ba dem bu tëmbee bay dem fépp fu mu jaar daa ñu mën a gis ba fan lañ koy mën a géolocaliser parce que gis nañ ne ko effectivement que à chaque fois bu ñu demee en maire bu ñu annoncé ne que réer nañu dañuy hasardé wu rek dañuy xëy nañ ñu ngi dem peut-être zone bu ci nekk nañ ci dem donc loolu jàpp na ne ko war nañu mën a mettre en place un système moderne en tout cas une plateforme bu leen di mën a permettre ci wàllu équipement ñu dem ñi ma jiitu fii wax nañ ci problème mu bëlu bi nga xam ne problème la au niveau de Saint-Louis on sait que amoon na programme boo xamante ne euh, ministère mi ngi ci doon liggéey les accidents en tout cas souvent bu géej gi yëngoo ngelaw am na gaal yi dañuy toj ñun dund nañ ko ay yooni yoon euh, bëggoon nañ suggérer à ce qu'il y ait un fonds d'aide pour pouvoir assister ces yi parce que jàpp nañ ne que loolu aussi dana leen mën a subvention dana leen mën a euh, soulager beneen bi mooy monsieur le ministre lu jëm ci wàllu moteur hors di encourager rafetlu bu baax a baax mesures yi nga xam ne euh, le président jël na ko état du Sénégal mais surtout di demander à ce que ni ñu ko gën a mën a yaatalee et que mu gën a gaaw parce que léeg-léeg di gis koo xamante ne dina toog lu mat six à huit mois balaa moteuram ci génn mais beneen bi ñu relever mooy dafa am ñi nga xam ne ñun dañ leen di woowee des industriels parce que dañuy jàpp ne mool nañu mais boo xoolee la ñuy employé ci seen i gaal ku ci am ñaar bala ñett di nga am plus de cent cinquante personnes yoo xamante ne ci gaal gi nañuy liggéeyee te ci nañuy dundalee seen njaboot bu ñu waxee euh, foofu ci wàllu moteur hors bord da ngay gis kooku nga xam ne am na ñett ba ñeenti gaal bu ñu koy subventionné benn yoon rek la am droit dafay obligé dem seet keneen utiliser ay papiers pour que mu mën ko am et je pense que pour faciliter la procédure loolu mun na doon taxawaay boo xamante ne di ngeen ci mën a dem wàllu essence essence bi euh, war nañ kaa mën a subventionné après effort yi nga xam ne def nañ ko parce que dañoo gis ne ko boo jëlee la grande côte ba sur la petite côte kenn mbaalatul fii ci Ndakaar di nga dem ba booru Kayar booru Joal Jifeer mbaal dellu si te boo calculer lu muy nekk ci frais c'est plus de quatre cent mille francs léeg nga dem nag doo am dara nga dellu si waat war a xëy matin war a delluwaat donc c'est pour vous dire que loolu dafa nekk accompagnement boo xamante ne doonoon na am solo ci li nga xam ne moom nañ bëggoon wax en tout cas je tenais à vous remercier monsieur le ministre euh,